rek mais ah. Sénégal yi seen xel dal na seen xel mën na dal mais bu ñu leen déggee en tout cas on a l'impression que ci lu métti lañ jëm parce que déjà dara xewagul yéen nga wax pays en donc su ngeen jëmee ci peut-être dina gën a métti. li ma gëm mooy on verra puisque man li ma gëm mooy li ma gëm man kon day métti. non pas forcément. Hmm. du redressement c'est quoi fépp mu amoon des mauvaises pratiques. fépp fu mu amoon euh, euh, euh, d'une situation de corruption fépp fu mu amoon des niche qui permettaient de détourner des deniers publique fépp fu mu amoon ay dépenses yoo xam ne dañu kon def te amul benn apport. Mhm. bu ñu rationaliser loolu noonu yépp pour man sénégalais yi dinañu gën a sentir un peu un seen bopp ci dëkk bi. Mhm. parce que rationalisation boobu des dépenses publiques boobu noonu loolu mooy permettre bu suba ñu am suffisamment de ressources. pour faire face aux dépenses prioritaires mmh. naturellement redressement boobu dina laaj un peu des sacrifices wala yenn yi un peu ñu mën ci ñu mën ci xaar bañ a atteindre des objectifs à court terme mhm. mais en tout état de cause bu ñu utiliser levier yëpp ñu def indépendamment de la reddition des comptes ñu ñu travailler de façon sérieuse pour que ñu ériger la bonne gouvernance benn principe bu nga xam ne kenn du ci am fitu déroger par rapport ak sanction bi nga xam ne moom la ñuy teg. ñi nga xam ne ñooy def des détournements de deniers de deniers publics et autres bu boobaa dinañ gis ne këy na kat état du Sénégal. soxlawul sax ñuy endetté wu yenn niveau daan endettement yi pour pouvoir satisfaire les. parce que xaalis am na parce que xaalis dina fi am. alors naka la ñu war a comprendre décision bi Pastef jël def cavalier seul aux législatives euh, tegee ne pratiquement ses alliés euh, ba ñenn ñi sax mer génn ci coalition Diomaye président lan moo tax ngeen décider dem ci euh, fànn boobu ci législative. Pastef est un parti très sérieux et très organisé. je pense que aujourd'hui PASTEF bi juddu en 2014 2015 booy jël les parti les plus organisés du pays da ngay wax PASTEF wax parti socialiste. Mhm. mais doo wax keneen ci structuration oui. ci structuration ci maillage du territoire. ça c'est vrai. donc PASTEF am na ay ressource fépp ci le territoire sénégal et à l'étranger pour mën a dem ay élections ak ay su boppam mais PASTEF n'a pas fait ça décidé wul def ko rek. parce que daf ko décider en 2014 ou 2015 si vous vous rappelez bien. Mmh. 2017 Ousmane Sonko bi ñuy dem avec la coalition jot na ci législative yi ñan la Ousmane Sonko àndaloon du parti classique yi nga xam ne xam nañ leen presque coalition jot na boobu noonu boo ci lim parti yi ñu xam ñu ci bëri xamatuñ sax nit ñi ci bokkoon. Mhm. mais pourtant Ousmane Sonko gëm-gëm boobu la amoon te moom day dem dem ak sa personne dem ak son discours pour mën a convaincre les Sénégalais mais Sénégalais dañ ko fal mu nekk député. mais muy dox muy dox ñu dem ba 2019. Mhm. ñu dem ba 2019 gis nañ nu ñu àndee woon ci lutte bi ñu demee bay commencé def ay def ay coalition pour dem ci présidentielle yi gis ngeen Sonko président ni ko nit ñi xawee esselé. Mhm. gis ngeen Pastef ni ko nit ñi xawee esselé dem bokk ci yeneen coalition les politiciens yi nga xam ne ñoo fi nekkoon de façon classique. Mhm. ñu bëri dem regrouper wu en deux pole ñii ànd ak Macky Sall. pour pour Benno Bokk Yaakaar ñële ànd ak Idrissa Seck par rapport à à, la coalition là ak ñoom Khalifa Sall. Idi 2019 ci 2019. Idi 2019 Ousmane Idi 2019 mais Ousmane Sonko dem ñi ci nekkoon ci ginnaaw comme ay leader envergure xamoo leen. Mhm. donc Ousmane Sonko dafa mës a gëm ne moom day jauger boppam ànd ak ay conviction bañ déroger lu ko Sénégalais yi jox ci gëm-gëm mu xam ne lii la mérito. mais Ousmane Sonko bu mu génnee foofu noonu avec un peu 15 pour cent. jël troisième jël troisième derrière Idrissa Seck Idrissa Seck dafa rejoindre Ousmane Sonko a continué sa route ñu créé Yewwi Askan Wi ñun ñëpp xam nañ lan la Ousmane Sonko liggéey ci Yewwi Askan ak Pastef. ñenn nekkoon locomotive bi loolu ñëpp xam nañ ko justement ñëpp xam nañ ko. Mm. mais lan la Yewwi Askan Wi ak l'intercoalition Yewwi Wallu jural Pastef. lan lañ leen joxe en termes de résultat électoral. ñoo nekkoon la locomotive. peut être ñoo nekkoon le grenier électoral mais in fine ñan ñoo ëpp député ci coalition bi du Pastef. kon ñoom ñoo leen jariñoo. du Pastef Pastef ëppul ci coalition bi député on est en 2024 le Pastef prend le pouvoir dem sur euh, la coalition Diomaye président ñu jël un peu le pouvoir leader yi nekk ci coalition Diomaye président c'est des gens qui ont beaucoup de mérite. mais ñëpp xam ne tam Pastef dafa nekk parti bu nga xam ne dafay joor a jël réew war a gën a mën a dëgëral ay banqaasam ak ay taxawaayam est-ce que tu penses que mal avec tout le processus jotul tey Pastef dem sur la bannière Pastef xam moom lan lay jëriñ parce que toujours tey am na ñu nga xam ne dañuy critiquer wala di remettre en cause poids électoral de Pastef en nous parlant de la coalition Diomaye Président ñun ñëpp xam nañ ne leaders yi fa nekk ñëpp ay jàmbaar lañ am na lu ñu indi mais soo ko doon raisonner en terme de pourcentage li fa Pastef di indi ëpp na quatre-vingt-quinze pour cent. donc mun nañu ne avec ou sans ñoom da ngeen doon gagner la présidentielle. ala kulli xaal. ok presque écrit que Pastef su amoon candidat élection yi da koy gagner. problématique bi yépp à mon niveau c'était de dire Pastef kan moo war a nekk candidat wala day am candidat j'ai toujours été convaincu. que malgré li ñu teg Ousmane Sonko yëpp problème mu nekk candidat même si c'est pas Ousmane Sonko si le Pastef a un candidat Pastef gagne les élections maintenant tey c'est une décision normale d'un parti politique kenn mënu ko reprocher un parti politique décidé na man damay dem sur le nom de Pastef et ses alliés duñu ko tuddee coalition Diomaye président mais on met en avant Pastef loolu ku loolu ku nekk war na ko pour sécuriser mais politiquement pour surveiller si arrière. est-ce que du trahison ngeen di ragal. est-ce que du du du leçon du leçon wàllu ngeen retenir à l'Assemblée nationale. parce que gis nañu ne intercoalition ngeen defoon mais bi ngeen yeggee foofu gars ku ne daa sa yoonu bopp. mais si on apprend si on n'apprend pas de ces de ces de ces tu vas pas atteindre des objectifs.

qu'on respecte beaucoup. Mais... ils ont la liberté et la responsabilité ils ont leur mouvement et leur parti politique ils sont autonomes mën nañu décider dem pour man loolu kenn war leen ci critiquer. seen responsabilité mais justement dama ne temps boobu moo fi leen ne leen ne leen ne leen mais ay alliés lañu ay alliés lañu. waaw d'accord xam nga ay alliés lañu. mais ñu ñëpp xam nañ ne entre bi le président de la République décidé ne dissoudre l'Assemblée nationale ma convoqué eh, ba l'élection législative anticipée au novembre mais ak léegi. mais au lendemain de la dissolution. amul ah ngeen mën a waxtaan ak ñoom. mais bien ko ñu toll ci waxi. dañuy defar liste dañuy lii dañuy mais justement ils se sont <laughs> se sont réunis. quand est-ce qu'ils se sont réunis ils se sont et c'est dans ces réunions-là que le président Ousmane Sonko a mais avec ses alliés mais ses alliés qui ont pensé que ñoom war nañu nekk dem nañu mais tey. Euh, l'écrasante ah, majorité dañ jàpp ne dañ leen bëgg a tënk non seulement l'écrasante non seulement l'écrasante ñi porté woon loolu sont là-bas mais justement ñeneen ña nga xam ne ñeneen ña nga xam ne nekk ñu fa woon ñu ngi rejoindre. Diomaye ah seen liste bee ngi. ñu ngi rejoindre pour ne pour ne publiquement di nga gis ni ay anciens ay anciens candidats à l'élection présidentielle def communiqué ne ñoom ils soutiennent la coalition Diomaye la quoi la la le Pastef pour les législatives donc ni mu amee ñu nga xam ne ñoom jàpp nañ ne loolu du seen gëm-gëm. am na ñeen ñu nga xam ne bokk ñu woon ci coalition bi am seen ay parti politique autonome décidé na ñoom dañuy ñëw ànd ak Pastef donc pour man ça n'a rien d'alarmant quelqu'un qui a sa responsabilité qui est autonome bu la neexee mën nga dem mais gisuma ne c'est un délit bu Pastef commettre ne dañuy dem ci législative anticipée yi sur la bannière Pastef alors investiture itam ñu ne yëngaloon na seen parti bi comme ni mu yëngalee d'ailleurs yeneen parti yëpp